Euh, soxna si Adja Ndeye Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax Elisabeth. di la gërëm di la sant. Uh-huh, ngay vice présidente And Gueusseum And di yëglu tey ji uh, ñu bëggoon a xam uh, lu xew lu ko waral. li ko waral day moom uh, ay ay poñ yu yu yu xaw takku tuuti la waaye rek pour gàttal ko. Uh-huh. mooy ba di ci jiitu mooy dañoo waxtaan noon fee njëkkoon a def préavis de grève. boo xam ne juróom benn weer la woon euh, mu waroon jeex ca mois de septembre ñu ubbi woon ay négociations ci gannaaw loolu am lu ñu waxtaanee woon ci ay secteurs yu bari ci gouvernement bi ci ay ministères sectoriels ma fàtte tam ci nasaraan bi sant bu baax ministre de l'urbanisme et de l'habitat bi nga xam ne vraiment wax dëgg yàlla boobaak léegi def na ay jéego ba teg ay comité yoo xam ne tey jii ànd sa mbokk na ca pour ay problème mu zakk loolu ñu ngi koy jégalu bu baax bi ñu ko waxulee ci nasaraan waaye euh, signature protocole bi moom daanaka moo gën a sabab li nga xam ne ni moo tax ñuy defaat préavis de grève ndax protocole bi dafa bari ay poñ yoo xam ne daf ko ëmb mm-hmm. euh, poñ yoo xam ne technicien supérieur dañ cee bokk poñ yoo xam ne ñeneen ak ñeneen dañ cee bokk poñ yoo xam ne ay prime la te li tax ñu gën a jëmmal prime mooy que dañoo gis ni vraiment ñu daal toujours daal dañ noo teg nee rek euh, ci ci ci wet gi. Mm. di di neexal ñeneen di gere ñeneen ñoo xam ne dañuy respecté aussi loolu ñu def mm. waaye it su fekkee na ngaa am njaboot soo joxee ñi ñaar dërëm léeg-léeg nga geesu ko ndaw ki jox ko boog tàngal. waaye dara dara dara booba ak léegi aussi ñu booleeg protocole bi loolu tam day day problème ñu xëyit suba gis ni ah am na ci ñoo xam ne ñu bëgg lool ci ñoom. Mm. ñu ñu ñu entamé benn eh, xeex boo xam ne gis nga tey gouvernement bi eh, li ma doon wax keroog rek xanaa ministre bi moom xaw ma dafa luxus xaw ma nu mu demee mm. waaye dañoo xëy rek gis mu teg ay milliards yu bari di mm. taabal ji di négocier te ñun bañ premier mais bii passé bañ gisee woon ak eh, njiital réew mi. Mm-hmm. njiital réew mi def nii ñun néew nañu néew goo xam du jël alalu réew mi ñëpp jox ñu ko ñun ñeneen ñu toog di xool. te it nangu na ne am na liggéey bu ñu liggéeyoon liggéey bu ñu liggéeyoon mooy que dañoo ci rémunération wu ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci fonction publique waxtaan nañ ci ci ngor jaaraama waxtaanee ko ca sali waaye bañ ko waxtaanee ba ñu ñëwee jiitu réew mi dafa nangu ne li ngeen wax de am la ndax maa woo woon consultant pour mu saytul ma lii. Mhm. ñu ne woon sax nañu arrêté yenn prime yi ak yooyu waaye bi ñu jógee ci loolu tam wax dëgg yàlla eh, gis nañ ne eh, man munuma ñi ci kaw ma jël ñëpp yóbbu leen ci kaw. waaye it munuma ñi ci suuf ma wàccee ñëpp ñi ci suuf ndax ñenn ñi dañuy euh, ñàkk kon ay aki mm. ñeneen ñi ci des aussi dañ leen di yéegal foo xam ne xëy na man duma ko àttan kon nag loolu daal lool laa leen bëggoon xamal mun a xariñu lool waaye ñu toog di saytu ne bu ñu jógee ci euh, euh, signature protocole bi mm-hmm. daanañu loolu ah ñu xëy a gis loolu am maanaam kon jiitu réew mi la ma waxoon moom moo moom moo ko respecté wul wala boog ministre des loolu jaaxal ñu lool ñun toujours rek toujours rek dégg nga toujours ñuy wax ne waaw bu ma demee ci hôpital sàngam duñ ma recevoir dama waaye ki nga xam ne tam moo lay recevoir nit la. Mhm. la muy fayeeku weer su ko mutul dara ak nag mu am xañ-xañu xool mooy que dañoo def kumba am ndey ak kumba amul ndey dañoo jox ñii ba seen xel dal ñun ñu jël ñu teg ñu fee bu jàngale kat yi gis nga barki dem boo njaay li am li am mooy que dañoo commencé ci professeur bi ba ki ci gën suufe waa ñun ñun ñu commencé ñun ci ñee ña ca des ñu arrêté leen ne yéen du ngeen am dara maanaam bi fi njiitu réew mi toogee ak léegi mhm. képp kuy paramédicaux fekk doo docteur. Mhm. nekk paramédicaux maanaam nekk infirmier nekk sage-femme nekk ay aide nekk leneen dara fifteen dolliwuñ ko ci suñu salaire loolu tam nan la mën a nekkee kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu moo ñu jaaxal. te ñoom bi ñu jub élection yi dañ ñoo waxoon nañu dañoo bëgg pour ñu signer protocole bi ñu rafetlu ko lool. Mhm. ah ñu dem ba élection yi jàll xam naa ni mbir mi bindoo amaana comprendre ñu. Hmm. boobaak léegi ñuy kii dara dara amul maanaam daal dóoruñu fayewuñu génnuñu géew àttewuñu xeex. ñun ñu toog ba kañ. protocole boobu le sax kañ ngeen ko xaatim. protocole boobu depuis mai deux mille vingt et un lañ ko waroon a lañ ko waroon a matal. tey ngeen yëglu euh, wax ne le di 17 euh, weer wi ñu nekk euh, bu dee gouvernement bi wuyu leen yéen di ngeen dem grève tey dañu bëggoon a xam en Gueusseum muy benn alliance bi nga xam ne dafa dafa tënk ñu bëri yan koor ñoo ci nekk la. waa koor yi ci nekk nag bari na maanaam te professeur bi rek la commencé ba ci ki gën a gën tuuti maanaam manœuvre yu tam respecté leen. Hmm. lool la ndax dama lay jox exemple rek tey jii ka ca Kaolack di di docteur Jaxate moo fa jiite ànd gësam ànd gësam moom koor yëpp la ëmb macha allah ñun moom amul ñii bàyyi ñii mhm. euh, euh, professeur ba médecin bi technicien supérieur infirmier sage-femme aide manœuvre yëpp ñun lépp lépp lépp chauffeur ak lépp bokk na ci ànd gas tey bu ngeen demoon euh, ba àgg ci grève justement lan la sénégalais yi mën a xaar ci paralysie waaw danga may permettre nag ma wax sénégalais yi ne leen ah ñoom nañu nañu nanu xool rek dañ leen dañuy attirer seen attention ne bu dara amee buñ ñu jël mukk kole nu motif mhm. ndax ñun danoo def préavis mooy maanaam balaa grève nga yëglu weer mm. avant. Mm. yëglu nañu weer avant mm. ndax loi Sénégal yi mooy li xaatim ñun suñu ay tëralin dañ cee nangu grève waaye it Sénégal xaatim. yeneen kii yoo xam ne convention yoo xam ne ay loi internationale la euh, notamment loi euh, kii euh, convention 87 ak convention 98 de l'organisation internationale du mm-hmm. travail mm-hmm. benn bi mooy ci liberté syndicale beneen bi mooy ci négociation collective mm-hmm. kon lool war na tax ba gouvernement bi buñ ko kiiyee fii ak weer ay la wax dëgg yàlla mu war dàq ànd wooñu ñu toog waxtaan léegi nag opinion bi nañ xam ne gouvernement bi dafa mel ni maanaam dafa tëx gumbalu ci li jëm ñun ci suñu ci suñu ay ay ay ay ay yelleef hmm. euh, baax dañ daan def toujours service minimum waaye ñun xam nañu defoon nañ fi de sept plan d' hmm. donc bu fekkee ni rek moom ñoo xam ne nii rek course de fond lañ man ànd ga sama ca jël pay ñoom su fekkee ne gisuñu ne problème war cee am ba ñu jël euh, euh, opinion nationale jël ñi nga xam ne dañoo tawat teg leen ci tali bi parce que ñoom ñoo ñu woowul waxtaan ñun laajuñu dara dañ ne dañ ñu woo waxtaan ñu seet li nga xam ne nii moo mën a ne. Mm. loolu mënuñu ko am ah waaw bu boobaa nag dëgg dëgg bu nu kenn bu nu kenn yedd bu yedd na yedd ñële rek ndax euh, concertation moom ñaari parti la. kon te nekk ànd gësam rek day nekk ànd gësam ak gouvernement. ak gouvernement yaa ngi rafetlu sànq liggéeyu ministère de l'urbanisme looloo firndeel ne am na ay avancées déjà. ci li jëm waaw plateforme bi bien sûr moom kay dama wax naa la ko nee la ministère de l'urbanisme moom am na loo xam ne def na ko mhm. waaye ñun fi ne li ñu soxal mooy li nga xam ne nii dañ koo fay ñeneen ñi bàyyi ju ñun tey jii koo gis mu retraité ci secteur de la santé da ko koy yërëm tey jii covid bi lim ñu wan ñun lim ñu wan ci tawat mhm. lim ñu wan ci loo xam ne nii ñu doxe fi ay junniy mil milliards te daanaka ñun bu dee dañ cee am genn wàll genn wàllu personnel bi ñoo am ñi ci des ba tey jii ma lay waxante yow fay ñu leen seen xaalis fay ñu leen seen ay prime mm-hmm. loolu yëpp ñun ñu boole te te ñun ñoo nekkoon ay soldats nekkoon ci kanam jiitu mm-hmm. ah wax dëgg yàlla yent bi ñun da jàpp nañ ne daal suñ ci tolloo su gouvernement bi yëngatuwul buñ ci tolloo danañ xam ne ah <laughs> mën ngaa mën ngaa tëkkale mën ngaa dendale waaye tëkkale moom du mën a nekk. élection yi moom ngeen doon xaar daanaka euh, hmm. génn nañ ci boobaak léegi yéen a ngi yëglu parce que seen préavis comme ni nga ko waxee mat na weer. ba ngeen ko hmm. déposé ak léegi tamit amul kenn ku leen boo jëm ci seen tutelle wala ci état. déedéet ah, euh, lenn daal moom am na wax dëgg yàlla. ñu di ko gërëmee au conseil du dialogue social ndax jot naa léegi sama téléphone mu yónnee ñu invitation alxamis ja à mm-hmm. onze heures mm-hmm. invité nañu au conseil du dialogue social pour ñu toog waxtaan mm-hmm. looloot ñu di ko rafetlu di jaajëfal euh, madame Innocence Tat Ndiaye ci liggéey bi nga xam ne toujours mi ngi koy def waaye ginaaw loolu daal wax dëgg yàlla gisaguñu suñu ministre de tutelle bi nga xam ne ñun dañoo jàpp ne day nelaw te yeewoogul ah mu yeewu rek te jéem a waxtaan ak njabootam ndax sa kër soo gisee mu yëngu ngay responsable su soo gisee mu mu am fu muy jëm war nga koo xëccaat jooyanti ko ngeen toog waxtaan. lan mooy doon plan d'action bi. plan d'action bi moom commencé nañ ko. Mhm. gannaaw li ñu wax ne dañoo teg préavis de grève. Mhm. Euh, plan d'action bi commencé nañ ko ni ñu ko commencé mooy dañuy dem ci ay assemblée générale pour waxtaan ak ñaax nga xam ne ñoo bokk ànd gësam ak nga xam ne gëm nañ ni lii ànd gësëm di doxal pour euh, euh, kii la intérêt euh, kii la intérêt collectif la ñooñu ñëpp dañ leen di woo assemblée générale ñuy waxtaan di weccante xalaat di seet ni mu gën a baaxee lu ci jubul ñu ko koo jooyanti lu ci jub ñu yokk ko donc ñu ngi jëm ci assemblée générale yooyu tey jii ñu ngi jëm a à yi pour pour assemblée générale boo xam ne dañ fa war a waxtaanee yu demee noonu. Euh, yeneen yi mooy assemblée générale boobu ñuy def caaro yi ay assemblée générale sectorielle la ci biir réew mi yëpp lay lay lay ëmb waaye am nañ également ay marche yoo xam ne maanaam doxu ñaxtu yoo xam ne dañ koy def ci département yi di def doxu ñaxtu nag national maanaam boo xam ne day intégré waa réew mi yëpp ñu war koo def le 10 bii di ñëw incha allah. Mm-hmm. am na beneen boo xam ne aussi dañ koy def mooy dañuy jàppale si nattangoo sage femme yi nga xam ne ñoom itam ñi ngi tas ci ci réew mi à travers le pays te bés bu ne ñu jàppaleen di leen xokkatal ak di leen méttital ci seen bërëbu liggéeykaay ta xam na ñu loolu tam wax dëgg yàlla convention 190. bu organisation internationale du travail da koo dàq nit kuy liggéey doo ko fekk ci bërëbu liggéeykaay nga di ko néewal doole te fa ñuy ne day sori sori goo xam ne pour néewal leen doole wala pour def leen leen day yomb ndax daanaka kaaraange. ak ak ak logement yi nga xam sax war nañ koo am te ñu di ko jooy dugal ko ci euh, protocole d'accord bi sax mhm. amu fa donc boobu juróom-ñaari fan la beneen bii la dix la waaye ci diggante yooyu dañuy def ay assemblée générale ak ay réunion incha allah daal di jëm nag mu ñu defee marche ba pare nag joxe nag suñu suñu mot d'ordre continuer ñu gis ne yéen a ngi yëglu jamono ji nga xam ne tamit am na yeneen syndicat de la santé yi yëglu ñu baaxoo gis jamono ji ne euh, secteur yu bëri dañuy bëgg di manko amando doorando su ko defee mbir mi gën a dal ndax yéen euh, waa gësëm e da ngeen fas yéene ànd ak waa f ngir amal seen euh, mouvement bi. waa ànd gësëm e moom wax dëgg yàlla moom amul amul problème ci ci ànd. Hmm. wax dëgg yàlla amul problème ci ànd li ñu am daal mooy. kuy da ñuy bokk vision. Mm-hmm. nga xam ne da ngaa ñëw pour tabax dañoo ñëw pour yëkkateendoo ndax mbooloo mooy doole. Mm-hmm. loolu nangu dañ ko. Mm-hmm. da ngaa ñëw pour yëkkateendoo waaye euh, su fekkee ni euh, loolu amut maanaam ñun moom ànd gësam ñun daal suñu bos daal lañu lañu la ñu xool ndax ci boobu lañu lañu lañu boobu dynamique la ñu ne dàq ñu nag kenn ku ñëw dugg dàq ñu kenn ku ñëw bokk. amul benn problème parce que loolu moo gën a rafet waaye it duñu nangu. ni euh, ñuy wax ni euh, dendale waaw waaye tëkkale moom mënuñoo tëkkale kenn ak ànd gësëm. soxna Adja Ndeye Diakhaté vice présidente ànd gësëm ñu lay jaajëfal bu baax a baax.